mosu mi na seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim yi sant yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Muhammad sant suñu ñaari waajur sant suñu wàcce la Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziare te di leen baalu ak yéen yi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo di seetaan waaru TV nekk waaru Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul waaru TV nag saa su ne ci émission yi muy def bii dafa bokk ci émission yi gën a am solo yi muy def muy seet si naa la nekk émission bu am solo boo xam ne dañ koo jagleel suñ mbokki jullit yi suñ mbokki taalibe yi jànkat alxasida yi jànkat alxuraan sëriñu daara yi bépp nit foo nekk rek dafa liggéeyal yàlla ak yonent bi sëriñ Ahmadou Bamba Waarwi TV dina la seet si ci seet si naa la seet si la xool naka ngay liggéey ak naka ngay toogee tey nag suñu jotaay bi ñu seq ko suñu jénn jëwriñ muy suñu jotaay bu njëkk nag ci seet si naa la ci seq suñu jënd jëwriñ suñu baay suñu kilifa di suñu mag di nekk koo xam ne liggéeyam ci yoon Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul bi ñëpp ko xam taxawaayam ci yoon Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul bi ñëpp ko xam ak fépp fu man di nekk ci àdduna rek eh, da koy da koy màggal di ko jëmbal ndax lépp lépp Cheikhul Khadim la amun ku du Cheikhul Khadim eh, bëggun ku du Cheikhul Khadim ak xasidaam yi mu nekk jënd jëwriñ ñu bàyyi suñu jëwriñ mu nuyoo ah présenté wu seet si naa la ñëw seet si la bisimilah sëñ salaam wa rahmatullah taala wa barakaatuhu. salaamaaleykum wa rahmatullah soxna Diarra noo ngi lay fay nuyoo. Mm-hmm. di la jaajëfal ci seet si bu am solo bii ngeen seet si. te liggéeyal yàlla ak liggéeyal Seexul Xaddim waral ko yàlla na ci yàlla defal barke. Mm-hmm. ñu nuyu mbooleem képp koo xam ne rek soppee la wala am di jàmm boo xam ne waar wi TV. xoolukaayam la mbégteem la ci li muy liggéeyal Serigne Touba mu di ko topp saa su nekk fuñ ñu nekk ci àdduna bi rek ñoo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, tey bëgg lool ci seet gi nga nu seet si. Euh, soxna jaara sëriñ Ibrahima Lo dey euh, ab dongo la di ab taalibe yaakaar Seexul Xaddiim juddoo fi Touba yaroo fi jànge fi alquran jànge fi fànni xam-xam yi. tabaarkàlla lanu ci yàlla wërsëgale eh, wëlbatiku nag di liggéeyal sañ Tuubaa ci xasaayid yi bu mënee wax sëñ Ibrahima Lo dey loolu laa mën a wax ci gàttal ci loo xam ne daal eh, mën naa ko wax ci sama bopp eh, jàng xasida moom mm, danu ko jële ci suñu ay waajur fekk leen juddu fekk ñu di ko def ñu bëgg ko lool góor wi man ko lool wu jigéen yu bëgg ko lool waaye ni islaam baaxoo rek jigéen kàddoom du jóg lu kawe tax na sunu wajuru jigéen moom da ko bëggoon rek waaye da ko daan durus di ko yalu mais daaw ko yëkkati mm-hmm. am sunu wajuru góor nag moom moom jàmbaar la ci woon donte xay na ci e, fii ci e, bawal siwu fi lool mm-hmm. waaye teewul njàmbur gi nga xam ne moom fa la féete woon ca bu njëkkoon mm-hmm. moom képp ko doon xam jàngkat ci jamono boobu rek xamoon nga ko mu mënal ko lool ñu koy ñaanal yàlla yërëm leen ñoom ñëpp yàlla dogal na jiitu nañu waaye nag yàlla yàlla yërëm leen waaye seen liggéey ak seen jeexital moo moo nu tàbbal ci xasaay di ndax suñu wajuru góor woowu bi nu xawee dëgër bi mu nu jàngalee alxuraan ñu jàng alxuraan jàng arab dem toll ci jàng métier ñu jàng suñu métier euh, waaye léeg-léeg nga dégg rek wayu àdduna nga di ko wayantoo benn bis mu wooma ba ma ñëw mu ne ma euh, yow kat dama laa tuddee sama wajur te bëgg la lool bo boo bul wayantu ci awayu àdduna wayantul ci xasaayit yi daal di yëkkati xasida ak mat lu sifa yi jox ma ma di ko jàng ba ba ba ni ma tàbbee nag ci njàng mi di roy alaaj Abdoulaye Ñang géwélu Xaadim Rasuul di ànd ak benn doomam bu ñuy wax Sëriñ Mbàkke Ñang mu doon jàmbaar ci air bi lool man ko lool waaye ma am sama jom bi ma dikkee ma ne ko ah, man ka naa bëgg nu ànd man ak yow mm, ngay jàng waaye nag ma it may jàng ndax man dama bëgg mën a jàng nga xam ne da daan def bu buy jàngi ma awuji ko bu ñu demee di répété tamit bu jàngee ba noppi jox ma ma jéem waaw noonu daal laa tàmbalee eh, ba ba léegi nag wérusu xasaa yi nag ak diggan di màgg ci murit gi nag di bëgg sëriñ bi mbëggeel goo xam ne xasida yi géej la goo xam ne loo ci gën di xuus rek di gën a bëgg sëñ Tuubaa ndax da cee wax yàlla wax ci yonent bi wax ci boppam xasida googu moom mooy xasida matlabu sifaa yi eh, eh, matlabu sifaa yi day xasida gu am solo goo xam ne maanaam médecine la boo xam ne mhm. day faj eh, jàngoroy xol jàngoroy xel day faj jàngoroy yaram mhm. day faj lu bari moo tax sëriñ bi taalifal ko murit yi mhm. ma am tawféex yi nag sama wajur moom la ma njëkk a jox waaye xam naa comme dañuy njëkkanteeg waxtu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 maata bubin bila siqaaxi wajal saqiirana yuwaqirul kabiir wajal kabiirana yuhinnu li saqiir wajal xuluubana ala tawaadudin bila tanaasuhin wala taasudin ولا تقاسم ولا تدابر ولا تباخد ولا تنافر حتى نسير المسلمين قاسهين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وافنا بالآفية تكون في دارين خير آفية واعمي وودك فناء مسلما ونجي كل مسلم ومسلما وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وخدا يوم القيام بجاه خير من سفى الأمرادا ووأبى المرقوب والأحراد محمد طبيبنا الأمامي المبري الأمراض والأسقام وسليا عليه ثم سلما وآلي ما ساب الكرما ما أفلال مسقول بدعائي وفي المريض باستشفائي ولناسم أيدا ساد الله صفاء وفيدا يا من يرم دفع كل داء فلا تفارق مطلب الصفاء ودم علي في المساء والصباح وأخلصا تنال صفاء وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى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 man yàlla dafa dogal ñi ma xam ñëpp xam nañ ne man damaa bëgg xasida waxuma sax di ko yëkkati waaye dama ko bëgg euh, bëggeel gi nag mooy ball ci sama xol rekk di ko fees di tuuru ba awma sago ci xasida yi euh, ma toog di euh, yàgg reefe ci sama àdduna maa ngi ñaan yàlla maanaa defal xasaa it daara defal ko loo xam ne dama ko koy moomale nga xam ne nit nit di defaree am néegam ba mu rafet mu def ca lal ba mu gën a bëgg def ca dara yi mu gën a bëgg di ko parfum ba mu neex mu mu mu terale ko jëm moom noonu laa gisee ne man man daal li ma bëgg mooy defal xasida am néeg boo xam ne dama dama da damay seet la gën a yell wala la gën a tedd rek ma def ko fa defal leen ko fa maanaam nga xam ne noonu nit di amee fu muy dalloo noonu lañu amee war a amee fu ñuy dallu maanaam loolu yëg-yëg boobu laa am ci xasida yi moo waral bi yàlla dogalee eh, li ma bëgg sax amaguma ko li tàmbali rek la hmm. euh, ma ma ma yàlla dogal néeg bi nekk néeg boo xam ne eh, am nag yaatu rek ma fekk téere yi dama ko defoon ci gaal yi denc ko euh, saabu bu ma toogee ba mu yàgg rek ma ubbi leen parfum leen dencaat leen waaye bi ma ko njëkkee def nii teg ko nii di ko xool da am naa une semaine boo xam ne dama fiy dugg di jooy rek ndax saa bu ma duggee rek yëg-yëg bi may am mooy mooy mooy mooy man daal euh, sëriñ bi mi ngi may dimbali ndax lii xaw ma woon ne sax dinaa ko waaw loolu day xanaa nag moom xasida yi de bari na bari na waaw moom day moom de léeg nga nga am goo xam ne sax da nit ñi dañ koy jaaxale waaye boo léeg-léeg am na yu fi nekk yoo xam ne duñ ko wane sax nag de ñemewuñ ko waaw jàng moom ni ma la waxee rek euh, léeg-léeg nag nga laaj ab jàngkat ne ko bi nga dalee jàng yàgg na mu boole ci jamono bi muy fawantu loolu bëgg yëkkati sa bopp la. Mm-hmm. waaye loolu kon ñëpp jàngkat lañu. Mm-hmm. waaw xam nga nga laaj jàngkat ne ko kañ nga tàmbalee jàng mu naan la daanaa takk ay baas di def ay kii yooyu ay wax yu wax yu yàqu la. Mm-hmm. Euh, loolu moom bëgg yëkkati sa bopp la waaye li wérti wóor daal mooy képp kuy jàng xasida te dëkk Touba. 89 euh, ba fii may wax ak yow xam na Baay Ibrahima looyu xasida ci njàng mi waaw. ci réew mi nga koy jàng wala ci bitim réew. ci réew mi laa ko njëkk a tàmbalee. 89 jooju ma la wax. di ànd ak sëriñ Mbàkke Ñang euh, ñuy ànd di jàngi ba mu yàgg nuy ànd ak ku ñuy wax sëñ maam Mor Sène maam Mor Sène mooy borom këru soxna Pend Ñing mm. euh, ku man eeru Alaaji lay Ñang waaw kon xam nga ko ànd na maam Mor ànd nan lopp fukki at fu jëm yóbbu na fa ñu di ko tërbiyewu di di ko topp ci air bi mm. eeru Alaaji lay Ñang ndax bëgguñ ko bëgg mm. te moom moom li nu boole dafa am bis booba fekk na El Hadj Abdoulaye ñu ngi wàcce kàddu mu yëkkateetul ma dem màggalu Daaru Salaam siyaare ba noppi di wañu ko di ñibbi si dégg kuy jàng ero El Hadj Abdoulaye ñu ngi ci jës bu. ma daan ne ah moom loolu de doy na waar ndax eh, kilifa gi de mu jàngatul te kooku ma dégg day mën na ko lool ma wañu ko di dugg ci mbooloo mi di dugg ci mbooloo mi ba fekk ko ci biir kër gi mu doon jàngee. ma ñëw bokk ci aw bi di aw ba ñu xëyee ci suba sa lañ fasante kóllëre ma bokk ci ñi koy jàppale. Mm-hmm. noonu laa toon ci biir réew mi loolu moom eh, jàngkat yi nga xam ne Eh, maase nañ jamono xam nañu loolu ci suñu jëmm mm. ba 96 nag xam nga 89 ba 96 boo ko toppatoo ab diggante rek la mm. ma daal di dem nag bitim réew Espagne mm. bi ma demee Espagne eh, na ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxe woon ab murit daal eh, na jël ab taalibam fexe ba gàddu ci genn matt rek fu mu jëm yor ko ñu xamee ko ko yaakaar naa ñi dëkk yi ma jot a jaar ci Espagne ñoom ñëpp xam nañ ne dëkk ma ya ma jot a jaar maa fa njëkk indi njàngum xasaay ci yëkkati moom loolu moom yàlla dogal na ko ah kay dama demoon di liggéey ndax bi may dem sama kilifa ma yóbbu man yóbbu ma sama bopp dañ ma damaa xëy xëy yóbbu ñu ma yóbbu tamit booba jàng melul ni mu mel booba jàng euh, booba jàng melul ni mu mel ba kenn man cee génn benn jàngkat boo xam ne jamono boobu maanaa demee na nii mu demee ci yow tey bari woon lool Euh, waaye bi ma demee dama fekk sama kilifa nekk ci lim ma digal mooy moytu lim may tere bokk moom liggéey ba di liggéey waaye euh, daayira Sëñ Tuubaa yi dafa am euh, boobu sax yaatoogu fa lool waaye am na fa rawatina na dëkk bu mel ne dëkk bi ma nekkoon nga xam ne ñoom teel nañoo am tawféex am daayira am fu ñu koy defee muy Touba Tenerife ma leen di nuyu lu ba lu bare bari di nuyu jëwriñ ji alaaji Abdoulaye Ña alaaji Abdou Ndiaye di sunu kilifa tabaarkàlla nekkal fa sëñ Euh, kilifa yi yëpp daan dal ci moom Cheikh Modou Mourtada euh, ak njaboot gi yëpp daan daan dal ci moom euh, mu nekkal nu fa foofu lañ njëkk nekk ci Espagne tàmbalee fa xasaayid yi buñ dem bu daayira jotee ñu dem daayira buñ demee daayira di jàngal daayira bi su daayira am bu daayira amul ñu dem liggéey yi boole dem ci daayira bi ak di liggéey yi booba booba tasaaroo gud nii mu tasaaroo waaw boobu tasaaroo gud nii mu tasaaroo ñu continuer nag di dem dëkk ba yàlla dogal ñu dem dëkk bu ñuy wax Ibiza Ibisa nag fa la sunu jëwriñ ji nu yóbbu woon sëriñ Daam Xarit Lo ñoo ngi koy di ko di ko ziyaara bu baax. <clears throat> moom moo nu moo nu yóbbu Ibisa ba demee fekk ko fa moom it muy jàmbaar ci daay Sëriñ Tuubaa ba euh, bokk euh, mbokki taalibe liggéey ba ñu ne fa waaye nag moom it dëkk boobaay it waa dëkk ba danañ mat sedd ci lii may wax Touba Ibisa maa ngi fa njëkk a yëkkati xasaay yi ci njàng mu yëkkati tey jii nii ku fa ñëwati di jàng xasida rek ginnaaw yàlla mën nga fekk si ñu àndante ko ba tey jii ay samay samay mbokki taalibe nga fa sëriñ Fallou Faye sëriñ Abdou Lahad Nger sëriñ Ousmane Seck gaa yu bare nga fa léegi tubaarkàlla yoo xam ne eh, kuréeli xasaay jaa ngay dox am nañ kër sëriñ Touba eh, liggéey ba na léegi nag man nag eh, ci biir loolu ma dem ba jëmmi jamono ma nekk ca dëkk bu boole liggéey ak jàng waaye nag xasida yi loo xam ne aw xal la xam nga aw xal bul bul ko toj boo saa boo ko tojee rek day daal di def ay étincelle taal foo foogul hmm. ma ma daan def bu ma bu ma liggéeyee ba été bi jeex li ñuy wax été ci moodu moodu su jeexee rek ba ma xam ne sama sama jëwriñ def naa bëggam mooy ma liggéey ba mu leer ko ne man bëgg naa njàng mi waaye duma xañ sama dara ma daa di jël nag sama sama alal nag def ci sans poche daal di nag dox nag dem nag ci dëkk yi ma xamul nga xam ne dëkk bu may dem damay yóbbaale sama koom ci sama poche ndax xooluma lu ma nit bi jox li may wane rek laa bëgg nit ñi gis ko ndax du xooluma lu ma nit di jox su ko defee maay paasal sama bopp dem foofa laaj daayira ba dem ca su ma demee jàng ca daayira ba ñooñu daal may xam noonu laa dox di di di wër goxi Espagne yi di taal përse bu përse bu ba tey jii fépp xam ma ñoom ñu mujj nag di ma wool seen bopp nag léegi ma may amay programme foofu euh, ñu di ma wool seen bopp maa ngi lay wax léegi rek ne la euh, mille 2015 maa ngi jàngee màggal goo goo xam ne du ma ko fàtte mukk màggal gu neex la euh, ci ci Espagne dëkk bu ñuy waaw Covid bi soxna si Covid bi laal na nañu laal goo xam ne eh, Covid bi Covid moom dañ koy bàyyi yàlla rek waaw Covid daal moom li waaye gars yi waxkat yi naan bàyyi naa la yàlla bu la nit defee loo mënul dara nga ne ko bàyyi naa la ak Covid moom bàyyi nañ ko ak yàlla. waaw ndax Covid soxna si ni mu def eh, xam nga man dama daan ni ma ni yàlla dogal jamono yi sama programme di ko doxe mooy su Mbàkke Kajoor dëgmalee rek damay daal di jóg dem. su ma demee maa ngi jàngee dëkk bu ñuy wax Lansarote dafa laay jàngee Mbàkke Kajoor di ko jàngal soxna su baax soxna Awa Ñang muy jàmbaari Sëriñ Baara tabarkalla di bàyyi Fall di présidentu jigéen ñi foofu ci kër Sëñ Tuubaa moom laay jàngal màggalu Mbàkke Kajoor at mu jot su ma jàngee Mbàkke Kajoor ba noppi euh, daan jàngal soxna yi nekk Tenerife ñoom tamit soxna jaara ndax xam nga màggalu Mbàkke Kajoor ak Poroxaan ak Kazu Rajab dañoo xaw a jege. Mm. moo waral ñetti programme yooyu bokk na yi daan ubbi saison bi ci man nga xam ne dama daan dem def programme yooyu ñëwaat Sénégal woor si su ma wooree ba noppi doo a jógaat dem def màggul Cheikh Abdoul Ahad màggul Darou Salaam ñu noonu màggul ma Mor Diarra noonu màggal yooyu bu ci nekk rek am nañ ci programme. Hmm. waaye ren jii bi mu yàlla dogalee ma def Mbàkke Kajoor ba noppi eh, dem def Poroxaan yaakaar naa mi ngi nekkoon le 5 bi passé. Hmm. Euh, ci at ma lay passé 2020 euh, hmm. bi. ma defee màggulu Poroxaan ba dal ci kër gi ñu ma dalal euh, dëkk bi ma waroon a jàngal. Kazu Rajab di ko waxtaanee ak man ba war maa yónnee sama paas yaakaar naa la loolu le douze la mars. ñu ne boobu subaa le treize bi dana la yónnee sa paas le treize ci guddi la Espagne génne décret wax ne bu kenn jógati dem fenn baare nañ lépp tëj nañ àdduna bi. waaw xam nga jàng nag moom day loo xam ne euh, kenn ku ne sañ naa wax ne man ab jàngkat la kenn doxul sa diggante nga nekk jàngkat ndax. jàng euh, day mbir moo xam ne mbirum sëriñ bee amul kenn koy laaj njigal da nga koy bëgg rek dugg ci kon kenn ku nekk na mu ko yëgee wala nam mu jàppee ne noona baax na noona la koy defee waaye man daal aqiqatan man man baa Ibrahima loo man ni ma koy defee mooy euh, di ko def te Sëriñ Tuubaa rek tax waaw fas yéene daal dinaa sellal sama jëmm sellal li may jàngit dinaa ci góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax ba. Euh, su ma yàqee aw araf dinaa ko dinaa ko dinaa ko xoolaat defar ko su ma yàqee ak masque dinaa ko xool defar ko su ma dinaa ko xool defar ko lépp lu méngoo wut ak nag li may def moom du ma ko def. ah soxna si loolu moom baatin la loolu moom mën ko. xam naa ne daal euh, xasida yi moom yëpp ma neex <clears throat> euh, waaye muxaddamatul amda sëñ Tuubaa daf daf ci tagg yonent bi alayhi salaatu wa salaam taggin woo xam ne. neex na neexin maanaam ku ku ku dëkk ku yàlla dimbali dara nga nga jàngal loxal arab yi xam ci dara maanaam ni Sëñ Tuubaa di rabbe baat yi ak ni mu koy composé ak ni muy fekkee benn masque boo xam ne maanaam bu bari woon ci wax bu bari woon ci wax da ko yàq sëñ bi bari la ko ci ba noppi mu neexal ko yooyu dafa bari ci mu muxaddimaat moo tax muxaddimaat ma euh, Covid bi ci laa woy Sëñ Tuubaa yu am solo ndax booba. waaw gis nga ko nii nii ñoo koy bind ci suñu loxo nii mooy suñu liggéey. bu nu bu nu yëkkatiwul xasida yi rek mm-hmm. noo ngi toog sunu boqo abi suñu daara ji di bind ndax moom wax moo waxoon na ay sukkati ay sukkati bat aw xuriat mm-hmm. ku ko jàng wala nga bind ko ñuy sàkku ngërëmam ci mbind mi di sàkku ngërëmam ci njàng mi moo tax bu nu bu nu bindul rek noo ngi jàng suñu jàngul noo ngi bind noonu lañ koy doxale xam nga dama toog fii gis ni nga xamee ne ni la àdduna méttee ci jàngkati xasaayid yi mm-hmm. mu mel ne sañunu ko ndax ndox ñun sañunoo nekk di di di kaas ay droit wala nuy ndax suñu mbir dafa dafa dafa dafa dafa nekk ci biir xam nga jàng xasaayit baax na lool waaye na jàng na sama mbokki jàngkat yi xam ne li ñuy def noonu officiel lul mm-hmm. li ñuy def nii jàng xasida mm-hmm. pour communauté la pour communauté de murid la mm-hmm. waaw àq ak yelleef bu nuy laaj rek murit gi moo na koy jox te loolu murid yaa ngi na koy jox te Sëñ Tuubaa bi ngi nuy boole murid yu ñu teral waaye am maa lu officiel ci wàllu état loolu li ñuy def defu ko waa Europe dañoo neex a jàngal ndax waa Europe moom boo leen doon laajalit boo leen doon laaj lan lay jox yow doo ko ñemee tudd. ma ne Baye Ibrahima bu. bu bi waaw loolu loolu mu yàlla loolu mu yàlla def na ko. Ah, eh, eh, <laughs> <laughs> waaye waaye yow xaaral bu Covid bi jeexee rek bu Covid bi jeexee. <laughs> incha allah eh, incha allahu rabbi da nga xam ne tey jii nii yaakaar naa sa émission bi nii. Ah. bu bu bu dajewuloon ak Covid bi boo jógee ci Covid bi da nga bëri ñu la wesare ñoon de ndax ndax ndax soppe yi tubarkàlla. macha allah dañu xeex ci suñu jëm ba lépp lu nit laal ci noonu rek ndeysaan dañ dañuy bég mbégte moo maa ngi nuyu soxna su baax soxna soxna Kiné Sène nekk fa Touba Kalpe di jàmbaar bëgg ma lool euh, soxna Mari Mbay di sama yaayu jigéen ñu baax ñoo xam ne cant soxna jaara gu mag la ñuy def maa koy maa koy jàng di ko taxawee euh, xasida gii li tax ma woy ko Sëñ Tuubaa mooy damaa damaa sentir ne moom rek Sëñ Tuubaa rek moo nu taxawu kon ya nan nan am ngor rek te moom kon nañ am ngor te féeteeg Sëñ Tuubaa buñ ko defee rek suñ lépp day taw féexe moo tax ma woy woy yi ma woy xam naa moom laay tëjee jotaay bi rek waaw. mais mhm. bala nga tëj nag xasida googu nga waxoon léegi. waaw nga may ñu ci bu benn cinq cinq minutes. waaw mhm. mu xaddimaat sama cameraman bi sa bëgg na ko lool. ndeysaan aw kon baax na. يا خادم المختار لا تنس سبه فمن ينسهم فالمطهم مقطع آخادم المختار آخادم المختار آخادم المختار لا تنس سبو فمن ينسهم فالمطهم مقطع أبو بكر صديق soo sidqi wal wafa rafiqu nabiyul mustafa alxaar anbaw abu afdil faaruqu sarwa unaadirun bihi tasadinul mustafa is yu sansiyu afiza bi man daa ibnu wafaana salon yaa loo nooru suma nooru nimal mubawiyu أبو سبتي المختار وهو ابن أمي علي على فقير يوم المجر أصاب رسول الله إني قديمه مهيبا لكم في الله والله يقله نهاني حب الله نهم المعيمن عن المين أما ختير والحق أخمن نبت لك عبدا لمولاي وادو خدما لمن أندركي كلا تسلو نفس بنا الميني بلا قماد لفرد على خلق ونا أنه ديدن نويت الدوام شكري وشكري قادما لخير الورى نهم الأسين المسين نبي رسول خير حبد وسيد قليل أبيب مثله ليس يولن نجي قريب شاكر وهو ساكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي saalihun wa huwa muslimun بشير لمن لله بلاقي يسن نبي نديب سويا مؤسب نسير لمن بسرك لمن بالكف بسرك يهلن نسين بلا قيس أليم معلم سقي بلا مدن كلا من يلين من الله رب الله سيبقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليمين daa way yonent wayu neex ndeysaan waaw mu xaddimaat beneen affaire la xam nga waaw mu xaddimaat nabiyun rasulun xayru abdin wa sayyidun xalilun habibun mislahu laysa yuxlanu loolu dafa neex xoolal ba maska lonk al arfu al maskatu damma al maskatu damma moom la jël ba rabbe ko ci way wi nga xam ne loolu tey bu fekkoon dangay ngay wax olof nga nga bëgg baat boo wax wax ak wala nga wax euh, maanaam nu ma la ko mën a misaal daal ba benn benn parole boo xam ne bu bu wax amee ci say kat donte benn la wala ñaar da koy naqaril Sëñ Tuubaa def ko ci lu mat juróom benn yoon te day gën a neex nabiyun rasulun xayru abdin wa sayidun xalilun habibun misluhu daal ne lay si yoxlanu <laughs> amul morom boobu sëriñ moo tax ma wa lépp laay def damay jàng dem El Hadj Abdoulaye Niang laay roy joolu xaadim rasul waaw moom moom moom way naa ko way wu neex woo xam ne dama tëdd guddi di nelaw ndeysaan ma yàlla wan ma jëm moom mu firi loxo yi ndeysaan ma ma dox jëm ci moom ñu daan ma fekk booba ndeysaan ni baat bi mel loolu nekk sama xol ak it roy gi ma koy roy ci laa ko waxoon ne ko baatu wurus buñ ko amoon delloo sa baat bi nam meloon amati njàng man amoon alaaji Abdoulaye Niang gaynde faat ma day jolli suñu sañoon tey nga dolli ku mos lu neex bëgg a dolli alaaji Abdoulaye Niang olofal yàlla dafa dogal moom yàllaa ma ci yàllaa ma ci defal fa waaw yàllaa ma ci dimbali maa ngi ci seen sëriñ bi waaye nag sëriñ bi daal moom uh-huh. moom woy yu ma woy sëñ Tuubaa uh-huh. maa ngi ñaan daje ceeg tawfeex ma ngërëmam xam naa ne nangu na ko nag ndax bi ndax bi ma koy bind jàpp moo ne da ngeen fi ñëw ba mën koo wax ci ab Bamba yaa ma yaa ma tax soxla doo faj aajo yaa ca gën gaaw watiis wa ca saxaar Cheikh Bamba yaa ma tax yaakaar yow soxla doo xaar faj aajo yaa ca gën a gaaw watiis wa ca saxaar ku ñëw fi yow andi ndabam sellal yéeneem ngir bëgg nga duy nga daldi fab sa mbaax gi daldi fab ndabam la duy kuy wax ci am xelam nga tontu ko xelam ma daldi dal ku fi déyit nga dégg ko ku wax ajoom ja daldi jël bii sëng rekk moo fi mat waay waayam du ko seetoon da koy taxawu kanam ak gannaaw di déglu lépp lu mu dagoon Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul bii sëng rekk mat waay waayam du ko seetaan da koy taxaw kanam a gannaaw di déglu lépp lu mu dagaan jàppal jógal taxaw te woo ko ciw turam mu ne jaas ahmadu bamba xaadimu rasuli rahmati naas borom tuuba aw turam la borom màggal gi aw turam la moo man ba géej si rawu jàmmi murid yaa ngi nii Tuubaa ne bi kenn tëlut kenn moom rekk lanu tal moo ko fi mat bay tawat ak njàmbat sori mot bi kenn tëlut kenn sëriñ Touba sëriñ Touba sëriñ Touba rek la mu tal moo ko fi mat baluy tawat ak sori Touba ne mottu kon leen jaajëf sëriñ Bamba war na guddeeg bëccëg budul ko nag maami Seex Muntaxa Mbàkke sunu dara du jekk kon leen jaajëf jaajëf sëriñ Bamba war na ku ne guddeeg bëccëg bu dul ko nag maami Cheikh Muntaxa Mbàkke sun dara du jëkk gëm bëgg yaakaar Cheikh Bamba rek lan ko fi def dunyaa wa oxra noo ngi fi moom tey mel ne dof dof dof luunu danoo dof Cheikh Bamba nu ko jaral kuy jaay te bëgg jaral jaayal waaja mu jaral bëgg sëriñ Touba bëgg sëriñ Touba bu dee dofit naw dof gu neex bëgg sëriñ Touba bu dee dofit naw dof gu neex bëgg sëriñ Touba bu dee dofit naw dof gu neex ku may xasit duma ci xuloo te man duma ci xeex te yàlla naa ci sax fawu muy sab laago bu ñépp gis te bum wér mukk duniyaa wa man naa ci des amina amin bi jaayi xaadim bamba ahmado mooy nangu ñaan moo yor mbooti haamilu ibrahima lo xasiida moo ko fiy dagoon yàgg ak wér ak sax ci ndigal am ngërëm lan fi dagaan Ibrahima alxalil xasiida moo ko fiy dagaan yàgg ak wér ak sax ci ndigal ami ngërëm lan fi dagaan aajo yu faju biir ak i bitti te yépp feeñ wa haajatu kulli muslimin soreeg jegeeñ subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ndeysaan <laughs> ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf sunu xol sedd na guyu li ngeen def lu rëy la ndax xam nga damay faral di wax ne <clears throat> non public bi ñooy sunu doole te bu fekkee yàlla dafa dogal nga war a feeñ ci bët yi boo soree bët yi rek génn ci xel yi kon ñëw gi ngeen ñëw ci noonu di nu di nu defal ay interview di nu jël euh, wax dëgg yàlla loolu liggéey bu rëy a la ndax tasaare mbirum sëriñ bi la. Mm-hmm. sëriñ Tuubaa nag noo ko jàppee rek noonu ngay amee féex ndax ni ma ko waxee ci woy wi rek euh, xam nga dama bëgg way wi mën a ànd ak àdduna di dox. Mm-hmm. moo waral tudduma ci li xew waaye contexte bi moo tax ma woy ko ndax euh, jamono bii mu toll yaakaar naa ne koo xam ne mbooloo yi ñooy sëy ñooy sëy ñooy sab liggéey. Euh, depuis mois de mars passé ba léegi nga toog mars di bëgg dellu si muy mat at bu fekkoon te ne amoo wéeruwaay di nga jàmbat waaye dunu jàmbat mukk ndax Serigne Touba ngeen ñuy taxawu ci nit ñu baax ñi nga xam ne ñi ngi ñuy taxawu ak it ñi nu seqal àdduna kenn ku nekk rek am nga sago muy sunu njaboot muy sunuy kilifa tubaarkàlla kenn ku nekk am nga am nga xel am maanaam am nga sago ci xam ne rek. teguñu ko suñu bopp yàlla na ko teg jamono la te lii nan sant yàlla ndax yàlla lu mu indi ci jamono rek am na lu tax lii bu weesoo xéewal yi day baawaan noo ngi ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér li mu ko ni mu ko soobee seen site bii di Waarwi TV noo ngi ñaan la ngay def boo sañoon kenn du la ci kawee mi ñi di jàng xasida kenn ku nekk yaa ngi góorgóorlu ngir bëgg rek sa public di bëgg ci yow kon yéen tamit seen Waarwi TV ñëw gi ngeen fi ñëw ak bokk bii nga xam ne sëñ Tuubaa lañ ko defal yàlla na sëriñ bi dugal mbiram ci seen mbir ba ngeen àgg foo fu ngeen bëgg a àgg soxna jaara bég naa lool di jaajëfal sunu caméraman bi nga xamee ne ñoo ngi daje woon ci bisu ahlu xasaayid ya boo ko xoolee rek muy nit ku waaw sëñ Saane muy nit ku am yar di nit ku teey ku dal koo xam ne tabarkàlla li muy def am na ci yéene kon nag yàlla na yàlla taxu leen sama xol sedd na jërëjëf soxna jaara ndeysaan ah, di di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen ñuy doon topp ci Waarwi sa émission seet la jàpp naa ne gan gi ñu am nag gan gu leen neex la te li muy wax ci xol lay jóge dellu ci xol ndax dama ne Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul yëg-yëg la su dee soo ko yëgee ba moom mu natt la nga di ko tagg ne ci xas xasidaam yi nga neel la di ñaan suñu borom nag yàlla nañu yàlla jàppale ñu mu yëgee si Ahmadou Bamba ñun ñëpp ñu yëgee ko si Ahmadou Bamba ak ñi ñuy seetaan ak képp koo xam ne rek yaa ngi sopp Waarwi TV ndax si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu yàlla yokk leer ndaas ci barkeem di ñaanal sëriñ Mountakha Bachir nii nag yàlla guddal fanam di cër ak mbooleem sët si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yi nga xam ne moom la seqal dëkkam bu sell bi dëkk maam bu sell dëkk Ahmadou Bamba di ñaanal suñu baay suñu xarit suñu waajur suñu wasi suñu lépp nag mi Cheikh Abdou Rafahi Falilu di ko ñaanal baax balay sax yàlla guddal fanam wéré cëram te naan ko bàyyi saa su ma yeewoo rek maa ngi gis ñaan yi naan la di ñaan suñu borom guddal sa fan ak wér ak mboolem njaboot sëñ Fallou gépp te noonu ka laa koy ñaan sëñ seex Mbacke son bu ak mboolem sët sëñ Tuubaa di leen jaajëf sa émission seet si naa la nag si Ibrahima loolu seet si woon ma leen di joxaat ci fekk fan juróom yu ne ci geneen gan ñu seeti ko ci barke Cheikhul Khadim incha allah kon jërëjëf Serigne Touba.